te am yu bëri yu ñu war voilà donc tey euh, comme ni ma ko waxee ci biir euh, li nga xamante ne moom mooy euh, gouvernement bu bees bi ci wàllu jub jubal jubanti tey ñu bëri ñu ngi leen di commencer di leen pointer du doigt que réew mi dara doxul parce que xaalis circulé wul emploi des jeunes bi des na maanaam ñu bëri instant bi nii dañu nekk ay dañoo am ay pour mun a surmonter transition bi waaw xam nga tamit euh, nguur boo xaman bon balaa may ñëw ci question boobu soo ma ko mayee tuuti parce que dafa am loo xam foog ñu leeral ci sénégalais yi ci côté dissolution wu assemblée nationale bi parce que soo demee ci article 87 boobu ma la wax. Mm-hmm. dafa ne président décret bu muy génnee ne dissoudre na assemblée nationale même décret bi moo war a fixé waat ci la war a waxee kañ lay organiser. élection yi te au plus tard. au plus tôt 70 jours tard. 90 weer. Mm-hmm. waaye mu amaat beneen disposition ci code électoral bi nga xamante ne dafa ne ci diggante parrainage bi. Mhm. ak euh, moment du scrutin bi war na am euh, cent cinquante jours yoo xamante ne war na cee kii xëy na tamit yooyu. man damaa jàpp ni ay sew sew la bokk na ci lu taxoon président saisir le conseil constitutionnel xamaguma nag exactement parce que lee rek laa ci xam mhm. mais jàpp naa ne loolu tamit bokkoon na ci lu tax mu saisir parce que sooy xool tamit Euh, euh, loolu disposition code électoral boobu respecté wuñu ko ci élection législative ci élection présidentielle yi passé d'accord ndax circonstances yi fi amoon et tout ça mhm. tax na woon gars taxu ko woon ñu respecté ko d'accord mais comme tey circonstance su amee rek mesure exceptionnelle day am xëy dinañ ci dinañ ci ci taxaw ba ñu mën koo méngale harmoniser ko nga mhm. xamante ne su su fekkee dissoudre nañ ko te ñun ñëpp à quatre-vingt-dix pour cent jàpp nañ ni dinañ ko dissoudre te bés bu ñu ko dissoudre ñu tegaat ko ci ci ci ci ñu respecter loi yi pour mën a organiser waat d' autres élections su ko defee sénégale yi tànn ñan ñoo leen di représenter à l' assemblée nationale léegi pour venir à votre question ci sénégalais yi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe ñun comprendre enjeu boobu moo tax ñun waa mouvement Sénégal notre priorité man depuis que ñu installément ma wala ñu élire ma comme coordonnateur du mouvement Sénégal notre priorité su ma juumul Ibrahima Thiaw mi ngi nekkoon le samedi 3 euh, août juste bu ma ñibbisee ci réew mi le lendemain lañ laa dem ci assemblée générale ñu tabbuñu léegi nag cette nouvelle coordination bu ñu leen tabbee dañoo lancé ay programme mhm. pour accompagner nos compatriotes sénégalais ci li nga xamante ne mooy seen ay jafe-jafe xool na nit ñuy def bu ut ci ay solution bokk na ci programme bu ñu lancé muy programme taxaw ci jafe-jafe askan wi loolu nag soo ko déggee mooy loo xamante ne benn kuréel benn plateforme bu ñu teg la di recevoir fan yi lu ñu jot ci ay appel kenn xamul lu ñu toll ñuy sant bu baax di gërëm la peuple sénégalais ci kóolute bi nga xamante ne dox na suñu diggante ak ñoom ba ku ci am jafe-jafe ci bërëb bi ngay liggéeyee nga ñëw ne ñu dem seeti waa Sénégal notre priorité pour ñu taxawu ñu ci parce que ñun xëy na contexte yi dafa changé moo tax tamit concept yi changé parce sooy xool ci régime bu ab Macky Sall malheureusement daawuñu woon prêter une oreille forte ci ñi nga xamante ne ñooy les ñiy porter yenn revendication yi mais yàlla dafa dogal régime bu bees bii waxuñu ñëpp la xam ne parce que am na ñoo xam xamuñu leen waaye am na ñoo xamante ne xam nañu leen te ñu jàpp ni suñu utiliser suñu ay relation wala xamel bu ñu leen xam dina mën a permettre sénégalais bu ñu seet si ñu dem toog ak ñoom ñu diis seeni soxla loolu mooy suñu première étape bu ñu teg bu ñu mettre en œuvre loolu moom ku ñu ci critiquer da ngaa bëgg critiquer rek parce que ñun sénégalais bu ñëw nañu. dañoo am jafe-jafe donc suñu objectif premier mooy nan niñ koy gungee accompagner ko ba jafe-jafe boobu mu am ñu saafara ko te coow du jib bal du tàkk ñun loolu mooy suñu mission premier première mais kantaan nag su fekkee dañoo épuiser toutes nos étapes de médiation de négociation ak ñoomi seen bu boobaa dañuy daal di wéy ci étape supérieure bu muy lan woote ay conférence de presse organiser ay sitting organiser ay manifestation or def ay rassemblement pour que ñu ñu ñi mu concerné ñu mën ñoo dégg d'accord donc ñun génnuñu ci logique boobu d'accord raison pour laquelle sooy xool fan yi passé mhm. yaa ngi gis suñu ay communiqué ci ay yenn autorité yoo xamante ne am na ñoom ñoom ndaje ay rencontre mhm. ku ci mel ni maître Ngagne Demba Touré bi yor SOMISEN mhm. parce que ci suñu biir collectif bu ñu yor muy plateforme bu ñu yor am na ay travailleurs bu AIBD SA cinq personnes ay pères soutien de famille yoo xamante ni dañ leen si dañ leen jëloon pour ñu essayer benn métier ci biir AIBD mais ñu def ko mais soo jëlee nit kee pour mu def essayage la logique mooy su paree essayage boobu ba nga ba nga valider métier boobu ñu nga ko doon defloo mais moom mi doon def essayage moom nga war a jël ñu bàyyi nag ba perte nguur gi muy nguur Macky Sall laata ñuy def passation de service ak euh, Cheikh Bamba Dièye bi fa nekk nga am suñu grand la ñu ngi koy nuyu au passage. Mhm. ñu daal di leen di dàq ñoom daal di jëli seen ay militants politiques ñi nga xam seen kër lañ toogoon di nelaw daal di jël remplacer leen parce que li xew ci réew mi dafa doy waar diggante bu ñu pertee réew mi ak bu ñuy def passation de service. ku ci nekk yokk nga sa ay salaire ay militan jël nga sa ay militants casé leen te ñun loolu mënuñu koo seetaan mu jàll. d'accord moo tax ñooñu buñ ñu seetsee. ñu introduire une lettre de demande d'audience boo euh, adressé ko le nouveau directeur loolu mooy waa AIBD SA mhm. waaye tamit ci biir collectif boobu soo ma ko mayee rek parce que c'est important mënumaa citer kenn bàyyi ñeneen d'accord am leneen lu muy nduru très rapide parce que liñ ci biir collectif boobu aussi mhm. moo regroupé ay travailleurs yoo xamante ne su ma juumul SNTT lañ doon liggéeyee muy SNTT logistique mu nekk benn société privée qui n'a rien avec état d'accord waaye ñu dàq leen de manière abusive ba pare ñu dem ci yoon yoon jox leen dëgg mais tey société boobu dafa toog lànk ne du exécuter cette décision de justice. d'accord ñooñu seet si ñu ñu ànd ak ñoom ci xeex bi. d'accord les travailleurs du ciment du sayal nga xamante ne lenn mooy seen motif lenn moo tax ñu dàq leen ils leen l'intention mhm. de mettre en place benn syndicat au sein de cette structure. d'accord ñu dàq leen ci de manière abusive abusive du moins joxuñu leen préavis joxuñu leen indemnité. dàq leen ñu perte seen liggéey comme ça. ba pare lank ne syndicat fa am. loolu dinañ ñun ñu woo leen ànd ceeg ñoom gunge leen d' ailleurs ñoo ñoo taxoon. Mm-hmm. ñu dem seeti. ñi nga xamante ne mooy euh, mooy Ngagne Demba Touré. pour waxtaan ceeg moom. Mhm. mu moom tamit mu accompagner ñu ci loolu rafetlu démarche bi déjà. Mhm. ba pare ne lépp lu mu mën ci lu ci niveau bu mu toll. Mhm. su jëree saisir ministre dina ko def. ku mu war a woo dina ko woo. su ko defee ñooñu seen ay jafe-jafe ñu wut ci saafara. sans oublier également ñi nga xamante ne mooy l' association nationale des handicapés diplômés du Sénégal. nga xamante ne ñoom seen problème principal. mooy décret d' application yi war a suivre la loi d' orientation sociale bu ñu voté depuis 2010 nga xamante ne lañ ko voté. Mhm. mais ba fu may waxee ak yow nii sur onze xaw ma treize euh, décret. Mhm. huit deux trois kese. lañ ci lañ ci lañ ci lañ ci signé. Mhm. lañ ci jël. waaye huit décret yëpp jëlaguñ ko te huit décret yi foog ñu jël ko. su ko defee ñu mën a respecter l'égalité sociale. su ko defee ñu mën a respecter le quota de quinze pour cent. ci fonction publique bi. d'accord donc ñun ñu ñu leen di accompagner dans cette dynamique ñuy profité waale di lancer un appel. Uh-huh. aux compatriotes sénégalais ñu ñuy ñu ñu ñu dem suñu ay plateformes muy suñu page Facebook. Uh-huh. jël fa numéro ki nga xamante ne mooy Mamadou yoro uh-huh. Ndiaye. moom mooy chargé de la des revendications. képp ku ci am jafe-jafe. ñun waa Sénégal notre priorité moo xam ngay étudiant moo xam ngay travailleur moo xam nga nekk un citoyen lambda. dëkk amoo courant wala amoo ndox. soo ñu seetee parce que war nañoo dem seeti le directeur de l'ASER. d'accord am na ñu ci benn village bu ñu saisir war nañoo dem seeti le ministre de l'hydraulique loolu Sénégal c'est da ciy ubbi dossier spécial comme ça entre entre autres ñooñu tamit suñu ñëwee ubbil leen suñu ay buntu ànd ak ñoom dem euh. seeti ñu toog loolu dinañ ci def suivi dama bëgg ñu jeexal très rapidement parce que temps bi daf ñu xoj mmh. gis nañ ay série d'arrestations mmh. bu ma nee arrestation maanaam du ma nee arrestation mais convocation en fait gis nañ le cas de commissaire Keita Lat Diop actuellement dañ ko interdire mu génn donc post yenn posture ñoo xam ne tey ci taxawaayu opposition lañ taxaw hmm. loolu aussi est-ce que du nekk ñoom du ñu am beneen gis-gis par rapport ak li nit ñi doon xaar ci justice bi. waaw dama bëggoon nag parce que mënuñoo jël cas yëpp bokkuñu ñu bëgg leen a hmm. commissaire Keita la moo tax ñu convoqué ko dikk. dafa taxaw ci plateau def assertion dégg naa ko démb mu dugg génn naan commentaire laa doon def ñam dig bële di nga xam ne réew mi du ay caaxaan nee na simple commentaire la doon def te yow seraan gis nga vidéo man gis naa vidéo boobu kan moo koy gis naan lii commentaire la xam nga ay muskalaf ay magum jëm su ñu toogee ci réew ñàkk discours walla ñàkk argument man bañu ma man man je suis toujours pour une opposition dans ce pays. Mm-hmm. dëkk dafa war a am. opposition loolu mooy enrichir la démocratie. waaye toog ci plateau di def des accusations flagrantes des accusations yoo xamante ni amoo ci benn firnde su la woon tey doo ci indi firnde parce que moom loolu la def taxaw naan président ak premier ministre dañoo nekk palais di jàppante jàppante yu métti ci damaa bëgg a dem Touba may dem doo dem. ak man maa war a dem États-Unis wala yow waroo fa dem ci ñàkk fa am nga loolu c'est di c'est une forme de jeter du discrédit ci suñu ay institution am nga ñun en tant que ñun ku ñu dégg ñu ne suñu président ak suñu premier ministre ñi ngi xeex pale ndax damaa war a dem Touba loolu loolu loolu du gàkkal deru institution bi di la fàttali ne d'après l'article la le président c'est une institution ça ne veut pas dire que ni nag sénégalais amul droit di ko wax di wax xalaatam jëmale ci président parce que ñun Macky Sall bu mu fi nekkee dañu doon wax suñu ay xalaat di ko jëmale ci moom. Mhm. donc loolu nuñ ko doon defee ci Macky Sall noonu lañ koy defee fii waaye ñun suñu ay sorti dem leen ngeen xool kenn mësuñoo dégg ñu saaga président saaga président ay ñoom baa jaxate li ñuy def saaga président ñu woo la nga ne opposition laa nekk moo tax ñu woom réew mi dafa am ay loi am ay normes fii ku fi def lu ne weng woowuñu la. kon su fi keneen keneen mun na génn defaat moom tamit la même chose ne parce que woowoo leen diw te loolu nag munul jàll dans un état démocratique un état démocratique c'est un état d'abord mhm. buy respecte les norme ak charte yi nga xamante ne moo ñu njaboote ñun ñëpp ci ci la ñu war a tënku léegi nga jël la cas de Lat Diop lan moo tax ñu téye ko euh, commissariat bu ay AIBD mhm. aéroport international bu Blaise Diagne yow yaa ngi doon occuper benn fonction d'après man lu ma article bu ma lire ci presse dafa doon occuper benn fonction muy ministre des sports ci biir fonction boobu ñun ñëpp xam nañ ni les ministres dañuy am ay passeport diplomatique léegi Lat Diop lan la tekki ci réew mi lan la ban poste lay occupé ci réew mi dama ne laaj rek. non actuellement il n'est plus ministre. il n'est plus ministre. donc est que yoon la. Lat Diop di dem ay euh, AIBD aéroport di génne euh, passeport diplomatique bi nga xamante ne fonction bu mu doon occupé moo tax ñu jox ko ko yow loolu di nga ci d'accord yow loolu su amoon ñun ñooy njëkk a génn dal ci kaw nguur gi parce qu'il n'est plus ministre des des sports donc pourquoi mu war a dem war a jaar fu citoyen yi yëpp di jaar maanaam wuti sa passeport sénégalais simple soo bëggee dem ci benn réew nga dem demande visa suñ la mayee visa nga dagg sa billet dem parce qu'il n'est plus une autorité dans ce donc loolu moo tax ñu jàpp ko mais est que dañ ko dañ ko mandat dañ ko euh, garde à vue dañ ko placé déedéet dañ ko bàyyiwaat mu ñibbi. Mhm. dégg naa nag ñu ne am nañu interdiction sortie du territoire boo xamante ne jaglal nañ ko ko loolu lu tax mënuma cee xuus mooy xaw ma ndax dañoo nekk di def ay enquête ci moom. d'accord xamuñu ndax su génnee réew mi est-ce dinañ mën a jote ci ci moom ak ñoom i seen loolu. c'est de la respons c'est de la compétence de nos nouvelles autorités. d'accord ñoo xool lan moo tax ñu def loolu. Mhm. mais soo jëlee cas par cas. muy imaam boobu ñu jàppoon. imam Cheikh Tidiane Ndao te mu doon def conférence de presse démb. dégg nga euh, kàddu yu mu yëkkati ci imam muy baajaxate loolu ku ku weddi Bah Diakhaté wala kuy rafet lu Bah Diakhaté wax rek dindil Ousmane Sonko bu mu ci doon tudd nga teg fa sa papa di nga xam ndax rafet na wala rafetut. d'accord Pape donc ñun dañoo dañuy plaider di prôner pour la liberté d'expression. merci beaucoup mais en toute responsabilité. man du ma taxaw ci télé di saaga nit même su fekkee du. institution boobu sax moo koy protéger mais fii koo fi taxaw ci télé saaga ko mu nekk un citoyen simple su la demee porter plainte pour diffamation dénonciation calomnieuse injure publique. Mhm. police da lay jël si. toog ci plateau nag di wax lu la neex. Mhm. police woo la ngay crier naan ñii ay dictateur lañ. Mhm. ah nañu nañu.